mais huit ans après Sédhiou reste la région la plus pauvre du Sénégal est-ce que li yëpp jaroon na ko. ah jaaroon na ko parce que lu tax boo waxee loolu man duma ci d'accord ak yow. Mhm. lu njëkk li may njëkk wax président Macky Sall met en exergue ñetti dee yi ci demam bi mooy d'abord il décloisonne les régions. Le président Macky a une politique qui décloisonne les régions. Le président a une politique qui désenclave région et le président de la République a une politique qui développe les régions en quoi faisant mhm. dafa am loo xamante ne tuddee l'équité territoriale mooy tey ki nga xam nga Mamadou Aw bu ñu waxee égalité mooy ñaar yu tolloo mooy nga taxaw ma taxaw ñu bokk fi ñu taxaw surface bi taxaw xam nga nous sommes égalité mhm. le président dafa ni loolu doyul parce que boo ma sutee yow nga nekk 1 mètre 80 man ma nekk 1 mètre 75 une même surface plane kenn du gis ni le président a dit maintenant damay liggéey ci li nga moom la ñu woowee mooy man si mesure 1 mètre 40 yow tu mesures 1 mètre man dañ may tegal chaise wala banc boo xam day tax man ñu tolloo taxawaay. une discrimination une discrimination positive. pour ma mën ko expliquer Sénégalais yi analogie boobu laa mën a jël. Mhm. président Macky Sall tey dafa wane xale bu dëkk Pakaaw xale bi dëkk Sédhiou xale bi nga xamante moom moo nekk au fin fond. de la Casamance placé wu na tey tere cinquante millions tekk ci loxo ñooñu si en deux fois par

y a 394 bénéficiaires qui habitent dans le département de Sédhiou mu am leneen loo xam ne xëyu ndaw yi le président annoncé woon ko ñu hmm. yëkkati une somme de 3 sur une ligne de crédit de personnes 6 bénéficiaires Amadou Awa mu am yeneen domaine ak yeneen domaine ñu ma la mën a expliquer tey jii ministre de la femme dem na foofu taxaw ñu ubbi ce qu'on appelle un centre d'éveil communautaire ci biir mu am foo xam dañ fay dajale xale di leen fa yóbbu mhm. mu am un centre de santé mu am ce qu'on appelle la maison de la femme mu yëkkati 500 jox leen ko ba pare yëkkati ay matériel d'allègement di ko jox Amadou Awa lii ku koy xeebal nit ñi dafay fekk nga taxaw fu sori di ah, mais est-ce que feeñ na parce que Sédhiou nee nañu euh, ci dernier euh, dernière étude bu ANSD 65 pour cent de taux de pauvreté. Euh, daanaka deux tiers yi ci pauvreté gu métti lañu la ñuy dund. waaw xam nga nee nga am na ANSD loo xamante ne def na ko lii ma la annoncé tey tey lañ ko def bu ANSD di defaat étude retombées yi dafay ñëwaat anytime noonu la man li ma gëm ci politique mooy du ma wax 100 pour cent ñun matal nañu lépp déedéet dama wax président Macky Sall déplacement bi muy def di ko dem ci région yi ñi ñu yaakaar ni mu mbaay la wala xumbaay man dama taxaw di la wax sur le plan concret lan la ñu mën a duut baaraam tekk si et ma woon ñëw ci li nga xam xamante ni moom mooy les infrastructures mm-hmm. kilomètres de route ont été faits revêtus le kilomètres de piste yoo xamante ni defar nañ ko léegi nag ma wax la li nga xamante ne mooy pont de Marsassoum bi mm-hmm. ñi ñi di ko gis léegi boo jógee Sédhiou tu fais huit heures de temps alors que bu njëkk ñi ñi dañ doon fanaan ci yoon bi ñu ñëpp gis nañu pont Gambie bi nga xamante ne da ñëw nga jàll mooy loo xamante nit da siy duut baaraamam mu Medina Wandifa ba jënde 42 yoo xam ne defaraat nañ ko nit ñi teg seen bët bu ma kenn wax nag kenn du lekk infrastructure parce qu'on sait que le développement passe par les routes et par les infrastructures mu am aménagement de la boule de budget qui est de am Tening 4 12 kilomètres yoo xamante ni ay route yu ñu def ak ay piste Mamadou Awa képp koo xamante ni nee nga Sédhiou am na fu mu ko fekkoon ak am fu ñu ko jëlee dafay fekk demuloo fa. mais huit ans yii li ma la wax mooy depuis 2015 bi mu defee loolu nee nañu les programmes annoncés ont été exécutés à 63 pour cent euh, li ci des xëy na euh, dépassé na moitié bi mais des na ba tey mais malgré tout ça li gën a tax ñuy teg baaraam mooy Sédhiou reste la région la plus pauvre du Sénégal. lii moo waaw loo xam nga dafay am toujours man mënuma ci avancé wu ci loolu. parce que amuma les données te dama am habitude di wax sur le plan scientifique lu ma maîtriser wul du ma ci wax. Mhm. je ne suis pas une bonne économiste même si je suis une bonne juriste. li ma fa def feeñul kay feeñ na yoon yi feeñ na. gis nga vidéo bi mënoon naa la ko mënoon naa la ko wan feeñ na ci askan wi parce que am na loo xamante ne dugal nañ ko ci biir askan bi wax naa la ko sur le plan agriculture ay jeunes yoo xamante ne am nañu ay financement ay jeunes yoo xamante ne pisciculture ñu ngi bëgg ñu jox leen ak li nga xamante ne am na suivi évaluation audit parce que yenn saa yi ngeen dégager xaalis mais du egg fa mu war a dem euh, loolu nag mooy waral xaalis bi bëri nii à l'annonce mais après concrètement duñ ko gis pour man am na avancement parce que comme li ma lay wax rek suivi évaluation dafay am ci gouvernement mënul ñàkk ndax man mm-hmm. rek a quelques jours je audité par la commission de suivi des politiques publiques te muy benn structure boo xam ne ñu bëri sax ko mu te dañu lay woo teg la nga ñëw toog autour d'une table il y a des députés qui sont là il y a des membres de la structure qui sont là ñu lay laaj quelle est la politique publique du président par exemple sa vision le l'argent qu'on a donné est-ce que mi ngi impacté directement sur la population pour vous dire que la gestion d'un état Mamadou Awa c'est nga koy def mm-hmm. yenn nga def comme na retombée boobu waaye ku gën loolu moo tax kooku tam il a dégagé des instruments yoo xamante ne de suivi de planification d' abord ensuite mu am d' ensuite mu am loo xamante ne suivi évaluation la boo defee suivi évaluation nga gis ni li ngay def impacté wul nga ni lan laay corrigé hmm. wala nga ni impacté na waaye war nañ ko mën a xoolaat parce que war na mën a gën a àgg man nii laa ko gisee waaye séeju ba xamoon ak séeju ba ma dellu man de xam naa ni waa Pakaaw gis nañu avancement ci dëkk.